ayca salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement day ah, ah, am occasion vraiment tey am chance aussi war a bëgg a seq ak moom rek benn waxtaan bu yaatoo yaatu xam nañ ne temps bi xat na lool yite yi bëri xat na lool waaye mu may ñu ko rek Cheikh As maa ngi lay bu baax a baax euh, maa ngi lay fay bu baax di wax ne alhamdulilah bi nixmatu tattumu salixat wasalaatu wasalaamu ala mawlaana rasulullahi wa aw jëddini aqan li jabari kasri fa innani wakkili sirri wa kafaytu siyaabi fi tarixati annaha kulluhum bil jësbin naa la munaxa walooy sa warooni fil aqati lam yorow wa ëwal wa aaxiru zaahir allahuma sal allah seydina mahamadin wa salim allahuma sal allah seydina mahamadin wa salim allahuma sal allah seydina mahamadin wa salim maa ngi sant yàlla di gërëm waa Lutte TV bu baax di leen eh, wax ne dal leen jàmm eh, ci première émission bi nga xam ne Ass Barham na tàmbali na ko at la waa Lutte TV di ñaan yàlla xam-xam bu fi war a tasaaroo yàlla na wër ba daj àdduna bi yëpp këpp maa ngi gërëm sama sëriñ ba Cheikh Ahmed Tidiane Serif di wax ne jërëjëfee Cheikh Ahmed Tidiane Serif jërëjëfee Cheikh Ahmed Tidiane Serif jërëjëfee Cheikh Ahmed Tidiane Serif jërëjëfee Cheikh Ahmed Tidiane Serif xatmil wilaatiya Muhammadiya Cheikh Ahmed Tidiane Serif bi nga xam ne moom la yoon maamam yonti yàlla Muhammad joxoon li nga xam ne mooy euh, euh, wilaayatu bi mu jël ko tracé ko moom moo waxoon ne euh, anaara juyleha min xaafin ilaa xaaf moom mu ne penc mi lépp luy góor di def góor yàlla moo koy def ci dëgguwaayam ak dëgguwaayam ci wàllu tarixa bi Cheikh Tidiane Sirif moom nga xam ne mooy sama sëriñ gërëm naa ko jële ko ci seex wëree la ko kilifa diine yëpp teewoon ziare naa leen di ziar xalifa ba Touba maa ngi leen di ziar di ziare sëñ Mountakha yàlla guddal fanam laayeen ñeseen cena ba jàngu bi ñëpp képp kuy wax ki nekk ci réew mi de ashhadu an laa ilaaha illallaah Cheikh Ahmadu nuyu na la maa ngi sant yàlla bisimilah yaaram. Cheikh As Barham xam-xam bi daanaka ku ne xam na ne si làmb lay yëngatu euh, Cheikh As est yow bëri na li nga ñaan ci làmb. Euh, lool lool lool As Brahama mooy làmb parce que bu ñu xoolee découvrir euh, ay mbiru As Brahama ba muy apparaître si YouTube réseaux sociaux diggante boobu sax si làmb la ñu ko wax ndax boo xoolee yàlla dafa dogal ñu gën ma gëstu ci côté révélation yi may def di wax lii dina am àddina bi yëpp teg seen bët. yàlla dogal euh, ci loolu tombek lambu ju amoon bu rëy boo xam ne ñëpp noonu laaj kan mooy daan moo jowoon verdict bi direct boo xam ne mooy amoon ci diggante Balla Gaye doon bëre at booy ñaa boobu laa apparaître lox ne Balla jamono ju ne Balla ñëwoon na set si ma wax ak man ma ne ko damaa bëggoon nga def lii sinon lii dana am Euh, ba mu te def loolu mu war a wax mu def yàlla def ni ma ko waxee woon ci biir sama biir kër man ak at ball noonu la combat mujj demee parce que dama ne ko bu fekkee jël nga lii tegtal sàngam si garabu benteñe lii at nii combat bi lay demee euh, boo ko defee nangam xam nga nag As booba euh, demeegul ni mu demee nii yàlla dogal nag wax ji xaw a kii tuuti gisatuma ko ni ma ko waxee woon ne ko combat bi nii lay demee te boo ko deful nii lay demee noonu la mujj demee ba mujj affaire bu amee àddina bi yëpp nag xam ne As Brama mi am na lu nekk ci la télé yëpp dawee ñëw ci man bépp combat bu fi mës a am ci Sénégal man maay joxe verdict yëpp yàlla dogal na du ma nit kuy génn ci média yu bëri si benn seen kese laay seen ñëpp laay feeñ ñëpp xam nañ ko seen boobu nag laay jox samay révélation lu bëri moo ko joxee génnee ko àddina bi gis ko tas ko ba àddina bi yëpp di ko wër boo gisee combat bi fi mës a lépp lu ci mës a am ba ci bu mujj auparavant bu mujj bi maa waxoon ne dañuy daw dóorante sont Balla at ki nga xam ne mooy euh, Tapha bu ñu dóorantee direct dana tuuru te direct tuuru na te buñ dóorantee benn mbër dina kaw loolu yëpp a ngi ci réseau yi ni ñaa ngi ko seetaan ni ma ko waxee noonu la amee te dama waxoon ne Balla bi yoon dana am ndam. loolu loo jàng la loo tarbiyu la wala lu lu wàcc si yow la. Euh, boo tax boo ragalee yàlla taxulaa wayaa xalimu kumulaa muy dëgg ci yow yàlla moo lay fekk fa nga ne xamal la te boo nee surtout Rahman yàlla nga koy wax ne bu fekkee ragal nga yàlla mu dëgg ci yow yàlla nee na man dama lay fekk fa nga ne. ma xamal la moo tax wa taxulaa xaysu maa kuntum maanaam ma nga rey foo man a ne rek bu ko defee sa jëmm ji sa cër yi sa juróom-ñaari cër yi ndax yàlla dafa bind ñett téeméer cër ak juróom benn fukki cër ak ñett cër ci doomu aadama juróom-ñaari cër yi ci kaw rek la nit di gis mais cër yi nekk si biiru cër bi moo ëpp solo cër yi ci kanam te cër yooyu yëpp ruu moo leen di alimenté yàlla nag bu la tàggatee def ci yow at wilaaya bu demee ba ba jublu la maanaam dalay yóbbu ci maanaam waayam maanaam foo waxee rek moom day def complément d'objet direct ci mbir mi ngay wax rek mu dem ci lu ko waral mooy ragal yàlla gi dugg gi taxaw ci pas-pas bi at gëstu gi tamit at rey sa bopp ba nga dooree war a jàng nga jàng nga waree tarbiya nga tarbiya ba yàlla dimbala la ba lii war a am am ba mu ñëwee ab jagle yàlla tamit parce que nit dangay am iman am islam ak iman ak ihsan après at jagle goo xam ne mooy maarifatu billaahi nga tarbiya jëmm yàlla ba xam fan la yàlla féete fan la ne loolu bu boolee ci góor yàlla lu mu lu mu wax rek day am. day am Balla Gaye dafa la seet si woon pour kombam am euh, ko waxoon lu mu mënta def danga ko waxoon lu mu ragal a def voilà lu mu demee noonu. xam nga yàlla parfois bu naree def dara ci mbir maanaam tey par exemple tey sama gis ak yaakaar naa da ngeen maa woo tombeek ma ne Ndakaaru kooku yàlla moo sabab ne tey jii Asbrahama at li TV. danañ mën a bokk ci benn mbir mi ñu war a toog moom nag yàlla dogaloon na ko ci moom ay rawaanam boole ko ak samay rawaan parce que asbrama ku ne xam na ay rawaan ak ay xuddaam yu day waar lay lay àndal rawaanam bal la boole woon naa ko sama rawaan mu ànd ak famille Ndiaye ñëw sama kër toog man ma décliné ko combat bi ci seen biir ñoom jotaay lépp nii la combat bi demee comme ni ma ko defee si télé yëpp yàlla dogal nag euh, amaana nit parfois day day day fattu nit day fàtte. parce que yàlla moo ñu bind euh, jox ñu sensation perdue récepteur périphérique ak ay œil muy organe organe de sens boo xam ne parfois ni ngay déggee ci cerveau bi parfois affaire bi da lay rëcc man na doon loo xam ne da ko fàtte. amaana bu fekkoon farlu bi war am na combat boobu du ko ñàkk parce que combat boobu téewoon naa ko sama loxo wax ko waaye damay wax ne lu ko yow min xoo fii sox nin yàlla lu am rek moo ko dogal amaana dogalu yàlla war war bàlla liggéeylu ma ko ci combat boobu loolu mais bañ ñëwaatee nag. gis nga li yàlla def alhamdulilah ñëwaat nag alhamdulilah ah, ah, Masata sama xarit la ku ne xam ne sama diggante ak ñoom te wax dëgg yàlla du ma ñaan lu ma amul duma ñaan lu ma deful mais wax fa dëgg neex yàlla euh, moom ba combat bi jotee jël na téléphone am woo ma jëflanteeg man ba ma def lu may def li mu am am macha allah alhamdulilah. nga def li ngay def li am am combat bi nag dafa mel aussi métti woon na parce que Balla Gaye Tapha ku ne xam na ne coow li bëri woon na loolu senegal yëpp koo waxoon mu ne Tapha moo ëpp doole moo gën a baax performance jamono ji si fukki at yi ñu jóge mooy favori yi xeex beek yu demee noonu combat bi ñëw demee nii. waaw xam nga làmb maanaam buñ koy wax ci wàllu mystique buñ koy boolee làmb ak mystique mën naa la wax ne jongoma bu ëmb doom bu bees la di wasin doo xam kan lay wasin xam nga euh, làmb mooy suñu cosaan ñun mais dafa doon compétition boo xam ne. il faut ñun ñu ñu ñu ñu ñëpp sëriñ euh, homme de homme d'état nit ku baax yëpp ñu jàpp si parce que benn boo xoolee àddina bi ni muy doxee at ni yàlla bindee xaalam bi tey Sénégal doon na un petit pays parmi les pays di monde fait partie parmi les petits pays de l'Afrique de l'Ouest suñuy ndaw boo xoolee ñëpp a ngi daw di dugg ci géej gi duytu lu ñu am tey facteur de développement boo xam ne la ci wàllu suñ dund xale yi daw nekk ci làmb yëpp mënoon nañ defaat leneen tey ñun dañu leen war a encadrer ñaan leen yàlla couvrir xale bu ndaw boo fëgg dëndam tey boo ko laajoon tey mbër bu ndaw ne lan moo ne sa xol dana la roi des arènes wala moo nga mel ni Modou Lo kon lu mel noonu structure bu mel noonu tey ne ci réew mi di facteur développement boo xam ne maa ngi lancé message au chef d'état at ñi nga xam ne ñoo ne ci gouvernement vraiment ñu appuyer ci làmb at yu mel ni làmb parce que euh, milieu it facteur boo xam ne la dafa am solo ci jeunesse. te jeunesse bu manqué jot manqué am-am manqué dara rek mooy waral li ngay am muy am ni ci géej gi dem di rey seen bopp dem di dugg ci lu mën a nag wala di agressé wala dugg ci rek kon facteur boobu kon bu loo ko yàlla fattalee ci benn côté kon képp koo xam ne nit koo xam ne bëgg nga si réew jëm kanam rek war nga ciy appuyer loolu waral may jàppale xale yi ci làmb ji ku ci gën a ndaw ak ba ci gën a gën a ndaw amul benn mbër bu yeewoo Sénégal te du oo As ci réew ci jamono ji amul ah di jëflanteeg mbër maanaam tey mbër seet si la ne damay bëri mbër sangam nga jàpp mbër boobu liggéey def lu ne am si jafe-jafe maanaam tey mu naqaree jàpp wala mu naqaree. benn yoon laa la ma mos a dal ci Modou Lo waaw mos a ma dal benn yoon ci Modou Lo ndax xam nga euh, yàlla dafa bind tabiyaay yi tabiyatu dafa am ndox ngelaw suuf ak ndox ak safara léegi tabe yooyu dafa am biddiw yoo xam ne day composé doomu aadama biddiw yi dafa te gisa nga doomu aadama yi ni ñu yàlla bindee niroowuñ tolluwuñ am na nit ñoo xam ne duñ ay sëriñ mais gis nga boo leen di laal nii affaire booy booy booy booy booy dóor day mel ni balu ci quoi man nga tiire mais day dellu soit yow euh, benn combat boo xam ne du ma la nëbbu <laughs> diggante ak mbër bu mu ñëwoon def ak man wax dëgg yàlla vraiment match si niin la mujjee du ma wax turu kenn mais dama jekku ba sonn ci combat bi ba mujjatee damaa gis li ma doon def yëpp day mujjate fayu sama kaw oo mbër bi wax ak moom wax ju leer ne ko euh, sawaay naa ma ne ko mbër mii ngeen di gis ne fi mos a doon roi des arènes ci biir làmb ji li ma yàlla wan ci moom mooy Modou Lo amul kenn kuy takk ngemb ci senegal koo xam ne Modou Lo ëppul la baatin ci làmb ji jamono ji waay wallaahi lazim te baatin boobu ñun sëriñ si lan <laughs> ñu koy xamee mooy xam nga sawaay xam ne dëgg rek tollul ñu gaa yi melul ni gaa yi yeggul ni gaa yi yegg fu mu yem organe de sens ak cerveau ak xel bu xarañ war na nangu li may wax te boo xoolee Moodu fi mu yegg fi mu tàmbalee ba fi mu yegg si boo xoolee nga xam ne kii parce que mbër entraînement la benn ñaar mystique ñi may dégg ñëpp ñuy wax ci làmb naan du mystique ak nangam gis nga jaan bu leen màttoon jaan tey dangar gi yéeg léegi bul ne bul dem ci sëriñ mu lukk mukk boo ko deful si faatu ngay mujjee mystique noonu la mel da ngay entraîné ba fees dell dem si sëriñ mu complété la nit dana ñëw pour mel ni man pour dévier la am foo xam ne yow fa nga nekk mu bugg la yàqal wala mu gëlëmal la parce que baatin day gëlëmaati loolu wane naa ko ci preuve ci àddina ba ñëpp xam nañ ne baatin day gëlëmaati te gëlëmal naa fi e som chef d'état bu ne fii amul lenn lu même bu dee si or lamb amul ku ma gëlëmul fii Sénégal ba mu juum def lu mu bëggul waaye ba juum def lu mu mën sa def te réew mi dama fi ne benn point de repère boo xam ne bu Sénégal xamoon kan mooy Ass Barhama vraiment danañ danañ taxaw ci man bu baax parce que ba réew mi di yëngu bu baax a baax a baax seex bi mën naa lox lu doy war bokk naa ci ñu ko defar ba mu ne tekk nii ni ma koy defee ci ci ci ci ci ci ci situation boobu noonu noonu laa ko def situation làmb ji tamit mais parfois ñaari buñ dawee ñëwandoor ci man parfois mooy waral ngay gis maxi niil wala tey ma xam ne tey mbër mi may wala jàpp am na baatin boo xam ne am na doole goo xam ne tey xam naa ne defet moom la sama mbëri am mooy bu affirmation niil mais booy xool combat bi nu muy demee nga xam ne mbër bii du mbër bu war a daanu tey ci làmb loolu baatin moo koy def. am na nag ñu gëm ne loolu amul ci làmb am na ñoo xam dañu naan la mystique amul ci làmb sëriñ yi dañuy naxaate mbër làmb entraînement doole fit mën a bëre mais looy wax ci loolu. ñaata mbër nga gis fii ñu am doole am volume bi am physique bi am bi fii ñu toll nii ñoo ngi États-Unis di di Modou Modou te lii ma la wax ko bu ma la ko tey fii ñu toog nii. très bien kon mystique boobu ñuy ñuy wax noonu quarante pour cent la ci làmb quarante pour ci làmb d'accord naa ne entraînement at teel a tëdd teel a nelaw téye sa bopp mën a bëre yooyu yëpp boo ko couvrir moo la jox soixante pour cent quarante cent mystique lan ma jox la ma décortiquer ko si benn côté laaj ma nan la la ko tëgg. nan nga may décortiquer loolu. tey benn exemple ma jël sa xuddaam sa rawaan sa lépp ma tënk ko. ma jël sa tur sa turu yaay ma adat ko mu jox ma ilmu nijoom ci si si si ban rawaan la man a tombeel ma am ñaata la ma daw ba ci géej ma sëf ko ma dem ba ci armeel ma def ko fa tey bu ma bu ma paree ba wér di man li may sikkar man waxuma sax bëre bëre waxuma bëre yaa waa ji kese mais bu ma neexee doo jóg fi nga toog billaahi laa ilaaha illallaa xam-xam am na loolu te loolu sénat àddina bi xam nañ loolu ci Ass parce que ñaata nit ñooy dem ci tele di di di def ay témoignages si man ci ñoo xam ne dolloon nañ ci diggante dund ak dee en loolu moom amatul lu ñuy werante boo leen demee sama page rek TikTok da ngeen koy gis nekkoon ci diggante dund de dee o Ass Barhama Ass Barhama tekki li ñu leen defoon ñu jugaat doxi seen soxla te docteur du gis lu nga def médecin du gis li nga def kenn du gis li nga def ci wàllu si wàllu médecine te loolu lenn rek moo la ko mën a may mooy nga dem ci borom baatin mu dindi ko te loolu yaakaar naa Sénégal ku ne gis na Ass Barhama li muy def si àddina bi kon nag mystique képp ku ne amul rek da ngaa dajalagul Ass Barhama. loo war a bëri Siteu Siteu nag nekk doomi séeréer nekk xale boo xamante yaakaar naa ne moom tamit phénomène parce que bi muy door a ñëw bëri dañ ne woon ne kii du yegg si fi mu ki muy bëreel di Modou Lo tamit yaakaar naa ne combat boobu noonu tey dafa mel ni combat boobu du yomb de seex bi. gis nga combat bi dama ci wax waxati wax ba sonn mais gis nga Modou fii ñu tollugum nii Modou Lo dafa am 70 pour cent Siteu am trente pour cent Siteu laata muy dem si tukkeem bi mu demoon Siteu amoon na 40 pour cent Siteu ba mu jógee si tukkee bu mu tukkee ñëw ci Sénégal taxaw taxaw naa def benn sortie ma ne 50 50 mais fii ñu toll pour wàll quintessence su Modou ak doole gi gaa mu yor ak ponkal gi mu doon ci wàllu baatin ba nga ne même bu même bu bu sangul même bu takkul même bu deful dara sax affaire bi dafa yàgg ci ne si moom parce que euh, boo xoolee lu ma ne xaatim Souleymane am na yenn genre sunguf wala ay reen yoo xam ne boo xasee ba utiliser ko day des sa biir yaram ba nga xam ne bu dee kaaraange à vie la lay topp ba ba ngay dee du dañ mu loolu loolu ko dal dafa dem ba fu mu toll dafa baatin ba baatin bi des ci biir yaram ba nga xam ne même bu sangul affaire dafa des ak moom. yaram bi daa dem ba tooke. dafa tooke loolu boo xoolee bu ma la koy déful dafa mel ni kon as brahma tey sëriñ yi tey dafay toog ñëpp toog ci télé may leen xoolee tremblement de terre na am tey Maroc ñëpp tiit na lii mënta nekk ñu xëy suba gis tremblement de terre ci euh, Maroc loolu lu ko waral mooy as brahma dafa wirdu turu yàlla wirdu turu yàlla wirdu turu yàlla ba turu yàlla bi mujj nekk ak moom nga xam ne lu mu wax day am kon ci tax na def attention baax a baax bu demee ñii mu dem nii mu continuer at système bii mu nekk nii ba dem ba ci kanam non dana garaaw ci moom trop waaye nag lenn rek moom man Siteu mën a am euh, si combat ndam mooy lan moom mu oor maanaam lu tollook juróom-ñaari ajjuma or sept vendredi Siteu woor wala set altine wala sept jeudi bu buggee combat bi am si tam gis nga bu deful lii dina am lu ko ci combat bi ndax Modou Lo leen rek moo ko mën a daan mooy wàllu nuuraaniya jamono ji mais du zulmaaniya boo jàppee ne mystique u zulmaaniya rek rek rek nga yaakaar pour daane ko boo demee da am lu naqari koor daal bu ko defee lépp loo xam ne lu nekkoon ci 40 pour cent la différencier ci jamono ji day wàcc surtout day yéeg waxuma nag ne <laughs> fii fii ma toll nii at yow ci émission bi tey jëm suñ ginnaaw nii laa wax buñ demee ba gën a jege. ba ma gis ñoom ñaari mbëri comme ni ma ko def ci yeneen combat yi damay taxaw ne diw mooy daan mais fii ñu toll nii Modou Lo moo jekku yaakaar naa ne loolu am na solo Malick Cheikh Ass Barham gis ko yombul jot jot ko sax waxuma la jot ko waaye nag tey yàlla dogal na te ñu gisee ak moom vraiment di seq ak moom aussi waxtaan bu yaatoo yaatu boo xamante ne si wàllu làmb xam naa ne sax dinañ programme invité ko débat sport mystique parce que lii faaw ñu invité des des des aussi ñu ñëw aussi débattre si li nga xamante ni moom moo di si wàllu si wàllu loolu waaye yaakaar na li mu fi waxagum yëpp vraiment nekk na loo xamante ni tey lu xel mën a nangu la tey si wàllu xam-xamu làmb waaye ba léegi rek ci ci ci ci ci ci làmb rek ak aussi si xale yi ci ci jeunesse bi am na aussi yeneen xale yu fi nekk yoo xamante ni ko si mel ne Reug Reug Boy Niang war nañu bëre tey combat boobu aussi noo ko gisee euh, euh, wax naa ci wax ju doywaat ci benn scène de la place parce que combat bu xaw a métti la ndeysaan ci Boy Niang quoi parce que dafa ci défaite te boo xoolee rëg-rëg nee naa la euh, Modou Lo moo gën a naqaree jàpp ci komba si si bëre yi mbër yi nii mais rëg-rëg moo gën a naqaree bëreel moo ci ci jour komba ci géew ndax rëg-rëg dafa ànd ak ay xuddaam yoo xam ne jour komba buy am xuddaam yëpp dañuy placé ci ci ñeenti koñu kiyam boo gisee muy jël tànk mi di ko suul si suuf si noonu loolu bu ko defee ci ko ci ci ci ci ci ci bëree non da ngay gis ne kii ku naqaree daan lay doon moo tax man duma la nëbbu quoi bu fekkoon man may Boy Niang hmm? combat boobu duma ko jël waaw lii sama sama point de vue la man As Brahma man la concerné quoi parce que euh, li tax mooy gis nga gis nga dafa am mbër yoo xam ne seen biddiw a à tout moment dañuy yéeg te seen compétition si lu bëre à tout moment dañuy yéeg te boo xoolee rëg-rëg dafa am ñaari côté yu mbër yu bëri amul laaj laaj ma ñaari côté yi. yan côté la rëg-rëg am. rëg-rëg day day day compétir day entraîner compétition rëg-rëg cent pour cent la entraînement rëg-rëg 100 100 pour cent la mystique rëg-rëg 100 pour cent la boo xoolee ci wàllu nelaw at reposer mbër at xam fam la jëm ci wàllu mbër fii ñu toll amul ku ko gën a bëgg roi des arènes. nii nii nii waaw te xam nga tey nit bu mystique am taxawee zaahir baatin mu am compétition xolo rëg-rëg depuis. combat ba léegi mu ne en extérieur di di di di di def compétition ci yeneen yeneen kii yi. MMA gis nga loolu loolu ngay gis noonu gars yi dañ koy xeeb mais compétition yu bëri ci mbëre day waral nit tamit bu nekkee eh, en compétition yu bëri day nekk en jour si jour ba day doon mbërëntaan ndax mbëri dafa am ay mbër ci seen biir mbër yi am ay mbërëntaan ci biir tey naa la si li ma tey ku mel ni rëg-rëg at ku ñu wax beneen mbër bi ànd ak Modou Lo nu mu tudd. gis na ñaari mbër yooyu ñaari xale yooyu. boo leen toppee ba ci biir avenir u làmb ji nii jàppal lii nga bind ko mu ci ñaari xale yooyu muy franc ak lu nag mën naa la cee booleel ak benn xale bu dëkk yëmbal tur bi laay fàtte. Diop 2 Diop 2 boole ko ci xale boobu bu la neexee tamit pour avenir u làmb laa lay wax de ëllëg te ëllëg roi des arènes buy dem booy toxu lii ma leen wax bind leen ko waa Lutte TV ngeen ko te ñii lay tuxu jàppal Diop 2 jàppal Reug Reug jàppal franc. jàppal beneen mbër bi nga xam ne moo nekk Fass ñaa ko aada Fass mais ci kaw moom mu gis Ass ma <laughs> man yàlla teral na ma moom ca dakaar topp ci ay mbiram aada gàllankoor topp ko liggéey bu bon topp xale boobu mais xale boobu roi des arènes bu leer boo xam ne moom la am ci wàllu carrière am at biddiwu mbër boo xam ne dafa jóg moom ak rëg-rëg at franc at job de gisa mbër yi avenir u làmb yii bind leen lii téere ngeen takku ci seen loxo lay mujj. ndeysaan am na solo xam-xam bi wër na waxtaan bi neex na lool Cheikh Ass xam tey xam naa ne tënk nañ la ndax yi tey bëri na tey ñu bëri nga taxaw tey di la xaar tey liggéeyu Lutte TV ci làmb na ko gisee. Euh, rafet parce que Dieu a créé l'être humain mais en mettant beaucoup d'obstacles euh, et puis euh, euh, personne ne peut pas lutter contre son destin. Dieu a créé en mettant des obstacles àddina da ngay dem di ñëw mais. boo xoolee man damay bëgg nit kuy kuy yëngu di di persévérer quoi man j'aime ça quoi parce que boo xoolee fañ jógee at fañ jëm vraiment da ngeen innover sax làmb ji man naa loolu parce que li tax ma koy ax mooy booy seetaan wala ngay gis dangay gis da ngay da ngay sentir sa bopp ci Bécaye mbay ba bi ñu doon Bécaye dëgg dëgg dëgg ci Bantamba <laughs> da ngay sentir loolu ci seen naataango ko maa koy remercier mooy Lamine vraiment da ngay dem ba yow da ngay sentir ne ñii nii am nañ beneen tuus bi ñu defaat ci biir làmb ji As Barham ba muy ñëw ci sëriñ dafa ñëw fekk gars yi di sol seen i bu toog maa man maa man maa man As ba jël preuve indi ko teg ko ci table bi day jël émission tele mu tijji ne ku bëgg na ñëw ma ma seetal ko muy toog muy seet cent personnes ku waxal nga yuux mu taxaw ne képp ku mas a taxaw ci télé ne As ma mas na laa liggéeyal gisoo ko waxal kenn du oote taxaw moom coobam di taxaw ci tele jël révélation xëcc ne bisimilah dóor lu tolloog cinquante révélation xam ne boo xëyee sa suba sa lépp nga gis accident yeeg lu ca géej gaag ba ci bu mujj bii mbuur maa ko wax accident yi am yëpp damaa koy wax affaire yam am étrange maa koy wax lépp lu xew ci wàllu àddina bi asbara ma ko loolu innovation la ci wàllu euh, sëriñ te dem lañ ma ñu bëri tey naw ñu c'est à cause de man te ñoom ñëpp kon war nañ ma ñaanal yàlla ñoom ñu ñaan liggéey bi gën a Lutte TV c'est pareil à Asbrama ñëw na innové euh, maanaam média bi am beneen système de ci de communication ba pare booy xool li TV di ko seetaan yow da ngay am envie seetaan parce que xam nga xam-xam ñaar ñaari mbir la taxaw dafa taxaw xam at xam xam-xam bu dooñul bu doonul ñaar taraax yi rek xam-xam bi day tëb xam lay doon te xam boo ko déchiffré day doon si ñetti téeméeri cër yeeg juróom-benn fukki cër yeeg ñett yi benn xaaj te benn xaaj matul ndax yàlla ba muy bind maam aadama da ko bind si jëmm cinq la ko jëmm dagg 15 xawaa di xawaa pour mu mën a mat xam gi mu xam ne quarante 45 aadama mii matul mu war mu dëgg si faaru càmmoñ xawaa ko mën a jur habil al habil mat nag ci wàllu compétence ci wàllu maanaam média wala ci wàllu loo mën a doon dangay ngay matee boor yëpp te xool Asbrahima mu ngi ci mu ngi Dakar TV xam ne Asbrahima Asbrahima mu ngi Dakar ñu bàyyi lépp lu ñu def fexe ba woo leen loolu dafa bokk ci liggéey boo xam ne foog nga ko koy boole parce que nit nañ nañ janax bu bëree bu bëggee mucc day bëri ay pax te macha allah loolu maa ngi koy rafetlu leen ñaanal yàlla seen télé bi dem ba mel ni Al Jazeera parce que vraiment li ngeen di def rafet na te maa ngi leen ñaanal yàlla te maa ngi seen ginnaaw te incha foo la ma soxlaatee rek incha naa ñëw jàpp yàlla guddal sa fan amiin yaa rabbi téléphone yi du dak appel yi ba nga ñëwee ba tey ku ne ñëpp a ngi taxaw bëgg laa gis bëgg a saafonteeg yow vraiment kontaan nañu si yow vraiment c'est disponible. jërëjëf kontaan jaajëfal bu baax yàlla fay leen